abonné ci sunu compte TikTok li ñu lay ñaan moo di nga dem ci commentaire yi di nga fa fekk lien TikTok bi ñu door revue de presse bi dooree ko stade yéenekaay Harry kenn ak Vinicius le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa tey jii nag la ñuy yeggali ñeenteelu bëccëg soxol Ligue des champions bu dee waa Bayern de Munich ak Real de Madrid li ñuy gis du lenn lu dul dem ci huitième de finale ya suñu amee ndam rek nag tey jii dinañu amal jaloore joojee bu dee waa Bayern de Munich ànd ak Harry ñoom tey Icardi la ñuy dalal Icardi mooy ànd ak waa Galatasaray jógee ca Turquie dem ca Allianz Arena fekki fa waa Bayern de Munich bu ñoom Bouna Sarr li waa Bayern na bëgg nag moo di dalal leen am ndam ci seen kaw ba noppi teg seen tànk ca huitième de finale ya bu dee waa Real de Madrid ñoom tey jii inchaa allah Sporting Braga la ñuy dalal li ñu bëgg ñoom it moo di am ndam ca match boobee mën a dem ca huitième de finale ya doomu Angleterre bii di Bellingham nag wóoru gut mu bokk ca match boobee su fekkee bokk ca nag Vinicius nekk Real de Madrid ànd ak ñoom doxal ñaari match yooyu yépp nag tey jii vingt heures lay door waaye laata ñuy yegg ci vingt heures nag am na ñaari match yu war a am soxal Ligue des champions bu dix-sept heures quarante-cinq jotee Napoli ànd ak Kvaratskhelia ñooy dalal Union Berlin bu dix-sept heures quarante-cinq jotee ca waxtu woowee Real Sociedad ànd ak Taki Kubo war nañoo dalal Benfica ànd ak Ángel Di María ñaari match yooyu dix-sept heures quarante-cinq lay door démb it am na match yu neex yu amoon soxal bëccëg bu dee waa Manchester City ànd ak Haaland ñoom qualifié nañu ci huitième de finale yi li leen ko may moo di Young Boys la ñu dalal duma ko ñetti bal ci dara bu dee waa RB Leipzig it ñoom nañu ci huitième de finale ya bu dee waa Atlético de Madrid ñoom Celtic Glasgow la ñu dalal duma ko duma yu métti juróom benn bal ci dara waaye loolee nag taxagul ñu ba léegi Atlético de Madrid qualifié guñu naam dóor nañu dóor yu métti waa Celtic Glasgow waaye ba léegi El Cholo ànd ak waa Atlético de guñu Nicolas Jackson it mi ngi ci journal bi moom nag bërki démb ab triplé la amal maanaam ñetti bit la dugal ak këlëbam di Chelsea Tottenham la ñu fekki woon triplé boobee nag nekkul yoon bu njëkk doomu Sénégal di ko amal ca Premier League ba moom Nicolas Jackson nag moo ko mujj def waaye laata mu koy def ñii def nañu ko ca Premier League ba mën nañu ca lim ñancoo Sadio Mané triplé na foofee ca Premier League ba Demba Ba tamit mos na amal triplé ca Premier League ba ba ca Henry Nicolas Jackson mo njëkk a amal triplé ca Premier League ba waaye mooy doomu Sénégal bi mujj amal triplé loolee yàggul sax bërki démb biir këlëbam di Chelsea doon jàkkaarloo ak Tottenham Maxet Diop it mi ngi ci journal bi moom nag doomu Sénégal la ma ngay football ci réewu Arabie Saoudite ab attaquant la journal bi da koo laaj ne ko yan wërsëg la Sénégal am ci Coupe d'Afrique bi ñu dëgmal mu ne li may wax de Aliou Cissé na ko dégg ak goneem Aliou Cissé ak goneem maanaam ngir gagné coupe d'Afrique Maxet Diop nekk attaquant di football ci réewu Arabie Saoudite moo yëkkati kàddu yooyu dénk ko stade yéenekaay ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futur Média fekk fa record yéenekaay Nampalys Mendy la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa moom nag tey jii mooy ànd ak clubam di Lens dem ci réewu ba bas PSV Eindhoven la ñuy fekki match bu mitti nag moo leen di xaar ndax waa Pays-Bas kat dañoo mën a tàngal rawatina club boobee di PSV Eindhoven Nampalys Mendy ànd ak waa Lens moo dem ci pays ba def match bu baax fexe am ndam bu ñu ko mënul amit ñu am benn poñ ngir mën a wéy di am yaakaar dem ca huitième de finale Ligue des champions ba bu dee Bouna Sarr it tey jii këlëbam di bay Bayern de Munich Galatasaray la ñuy dalal li ñuy ñaanal doomu Sénégal bi nag moo di mu départ titulaire ca match boobe wala mu am ca ay minutes doxal ndax temps de jeu am équipe nationale bu Sénégal soxla na ko lool ngir kat bu ñuy dem ci Coupe d'Afrique ba mu mën a ñëw jàppale Aliou Cissé muy Bouna nag Galatasaray la ñuy jàkkaar lool ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe waa pari la surnal bi fësal ca wu njëkk wa rawatina Gigio Donnarumma mu sëngéem jaaxle lool ànd ak waa pari surnal bi nee na de Paris moom bu génnee day lëndëm lool ci moom kenn ku ne xam na ni nag Paris dafa leer naññ te ku mu dalal ci stade am di nga ñandu ba fa waaye kat bu génnee rawatina ci Ligue champion day lëndëm lool mitti lool ci moom ñaari génn yi mu am yépp défaite la ca jëlee ndax bu yàggu dara fekki na Newcastle daanu jël bu mitti ñeenti bal ci benn démb mu fekki AC Milan mu gañe ko ñaari bal ci benn moo tax journal bi nee na Paris moom bu génnee day guddi lool ci moom loolee la l'équipe xamle ñaari match yi ko dese ci Ligue des bi nag défi yu mitti lool lay doon te fa kastalu nag waratu ko muy wa Paris ànd ak Kylian Mbappé ndax dese nañu Borussia mun dese nañu tamit Newcastle ñaari match yooyee li leen ca war moo di jëmbat ful la gagné ñaari match yi yëpp loolee la l'équipe xamle. ñu jugee France wutali Portugal fekk fa oxogo wa Porto rawatina Pepe la journal bi fësal ca wu njëkk wa ñoom nag démb dañoo amal jaloore Royal Antwerp la ñu dalal duma ko ñaari bal ci dara ndam loolee ñu am sax poule ba ñu nekk ñoo jël pee tolloo ak Barcelone ay poñ li ko waral nag moo di ndam li nga xam ne am nañu ko démbu ñaari bitu Porto yi ñii ñoo ko dugal Evan Nilsson dugal na Pepe moo dugal ñaareelu bit bi ci ndaw ga ñu am ndam lu ama am solo bu dee waa Barcelone moom dañoo demoon fekki Shakhtar Donetsk nërmelu benn bal ci dara jamono ji nag ñoo tolloo ay poñ kenn ku ne neuf poñ la am waaye Barcelone moo gën a néew ay bit yu mu dugal ndax Barcelone huit bit la dugal encaissé ñaar bu dee waa moom dugal nañu neuf bit encaissé ñett kenn ku ne ci ñoom nag plus six nga am waaye kat Porto li mu dugal neuf bit Barça dugal huit bit loolee moo tax Porto jiitu ko kon jamono ji Porto moo jël pee ca poule H bi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk Barcelone Royal Antwerp ba ca Shakhtar Donetsk loole la surnal bii di oxo goo xamle ñu jugee Portugal wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport waa Newcastle la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ñu jaax jaaxle lool ndax démb ca Allemagne la ñu demoon fo fa Borussia mun mu gañe leen ñaari bal ci dara te ca match aller ba tamit ñoo dalaloon Borussia mun mu gañe leen benn bal ci dara nag seen doxin ci ligue des champions bi gàllu góose na lool li ko waral moo di ñaari défaite la ñu tegale kon ba léegi nag seenu qualifié ci huitième de finale ya leeragut te seen match bii di ñëw Paris la ñuy fekki match boobe dina mitti lool ci ñoom te Paris tamit dafa soxla ndam ndax moom ba léegi qualifié gul ci huitième de finale ya ñoom waa Newcastle nag ànd ak Ejiho mi leen di tàggat li leen war moo di jëmbat fu la fàtte yoon wu bon wi ñu jaar jamono jii ngir mën a dem ca huitième de fexe am ndam ci kawam loole la surnal bi xam xamle bu dee waa Manchester City ànd ak Pep Guardiola ñoom qualifié nañu ca huitième de finale ya bii nag mooy onzième fois bu tegaloo maanaam fukk ak benneelu yoon bu tegaloo Manchester City di teg tànkam ca huitième de finale Ligue des champions ba li leen may loolu nag moo di démbu Young Boys lañ doon dalal duma ko ñetti bal ci dara match boobee sax kenn du ca Haaland ndax ab doublé la ca amal maanaam ñaari bit la dugal ca match boobee ñaari bit yooyee mu dugal sax tax na mu am 39 but ci ligue des champions te moom nag li mu football ci ay match matagul sax 39 match ndax 34 match la jongantee gum ci ligue des champions am ca 39 but kon li mu dugal ci ay bit ci ligue des champions moo ëpp li mu football ci ay match kon capaacurig Norvège bi kenn du moom foofee ca Angleterre it ñoo ngi xaar tey jii seen ñaari club yii bu dee waa Manchester United ànd ak Erik ak Hag ñoom tey jii ca Danemark la ñu jëm Copenhague la ñuy fekki li ñu bëgg nag moo di am nekk ñaareelu ndam ci ligue des champions bi nekkit ñaari ndam yu tegalo soxal ligue des champions bu dee waa Arsenal ñoom tey jii Séville bu Sergio Ramos la ñuy dalal li ñu bëgg ñoom waa Arsenal ànd ak Mikel Arteta moo di am ndam ngir mën a dëggal seen bopp ci ligue des champions bi. ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéene kay waa Atlético de Madrid le journal bi fësal ca wu njëkk wa démb nag Atlético gu soxor lool la gis bi ñu ak yëkkati juróom benni bal ci dara Antoine man ak Alvaro Morata kenn du ñoom ca match boobee ndax ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne ci ñoom dafa doublé maanaam ñaari bit la dugal jamono ji nag Atlético de Madrid nooyi waat nañu naam qualifié guñu waaye dugg nañu tamit ci taarixu Ligue des Champions ndax format bi mu nekk maanaam ni mu mel jamono ji melu ko woon bu njëkk bi ñu ko soppee nag mu mel ni mu mel nii ak tey jii Atlético de Madrid amul ndam lu yaatoo nii jàkkaarloo ak équipe duma ko juróom benn bal ci dara kon dugg nañu ci taarixu Ligue des champions bu dee waa Real Sociedad ñoom tey jii bu 17h45 jotee Benfica la ñuy dalal li ñu bëgg nag moo di am ndam suñu amee ndam rek qualifié nañu ci huitième de finale ya bu dee waa Séville ñoom tey jii ca Angleterre la ñu jëm Arsenal ànd ak Mikel Arteta la ñuy fekki Séville nag li ñu bëgg moo di def coup bu mag ndax tey jii kat bu ñu amee ndam dinañu wëy di dund ba léegi ci Ligue des bi waaye ci ci ligue des champions bi maanaam dootu ñu mën a qualifier li ñu bëgg nag moo di bett ñëpp dem ca Angleterre fekki Arsenal duma ko loolee la Marca yéene kay xam le ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay waa Atlético de Madrid rawatina Antoine Griezmann la surnal bi fësal ca wu njëkk wa Griezmann Ligue des champion sax la ko tuddee ndax doomu France bi ànd ak Atlético de Madrid démb festival la ñu doon amal ca Wanda duma duma yu mitti Celtic Glasgow juróom benn bal ci dara journal bi nag nee na waa Celtic dañoo teel a am carton rouge ndax bi ñu jongantee vingt-trois minutes maanaam ñaar fukk ak ñett simili ci la ñu am carton rouge loolee bokk na ci lu yombal matsub Atlético de Madrid ci cëppaandaw ga nag ñu am dam lu yaatu mën a deferaat seen toogaay ci Ligue des champions bi ànd ca ak Alvaro Morata moom it doxal na ca match boobee bu dee wujju Atlético de Madrid yi di waar Real de Madrid ñoom tey jii bu vingt heures jotee Sporting bu Braga la ñuy jàkkaar lool match boobee nag wóoragul Bellingham départ ca titulaire su départul nag ñaari doomu Brésil yi ñoo fay nekk di doxal muy Vinicius ak Rodrigo journal bi tamit ñëw Camavinga officiel na doomu France bi yokk na contrat ba atum deux mille vingt neuf ci Real de Madrid kon Real de Madrid tëj na ko clause ba la ca nekk moo di un milliard d'euros comme ni mu ko defee ci Vinicius ak Rodrigo. ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport waa Barcelone la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa ñu sëngéem jaaxle lool de mal en pire Barcelone de ci bon la jugee dem ci yées loole la journal bi xamle ndax fan yële weesu kat Barcelone yi mu doon football lañ doon wax ni baaxut waaye démb moom dafa yées loole la journal bi xam xamle li ko waral moo di Shakhtar Donetsk la ñu fekki woon mu gañe leen benn bal ci dara ci premier mi bi nag ci la bit bi dugg waaye Barcelone topp na ca ba match bi jeex munul égaliser Xavi nag képp ku mu yaakaar dugal na la ca match boobee waaye kat munul fexe ba dugal ab bit bépp xam-xam bu Xavi amoon rek génne na ko ca match boobe waaye kat loolee doyul ca ca pandaw ga ñu am defet jamono ji sax ñàkk nañu première place bi Porto moo jël pee Barcelone jël deuxième waaye ñoo tolloo ay poñ xelu Barcelone gépp rawatina njiitu club boobee mi ngi waaj a tey ci Xavi loolee la journal bii di esport xamle. ñu jugee esport jël Mundo Deportivo waa Barcelone la journal bi fësal ca wu njëkk wa décevant lu ñaaw gàcce gu mag la waa Barcelone am démb bi ñu jàkkaarloo ak Shakhtar Donetsk mu gañe leen benn bal ci dara jamono jiisax sax Barcelone ñàkk na première place bi moo jël deuxième démb nag Barcelone kenn xàmmewut ko ndax Shakhtar Donetsk da koo mëne bi yépp benn tiir cadré la ca am loole nag rafetut ci gisin club bu mel ni Barcelone am ngën di attaquant ñu mën a leen mënuñoo am sax tiir cadré yu bëri lu dul benn tir cadré loolee jëmut kër te dalul xel tamit kon nag nañu leen ñaanal ñu yeewu balaa yàgg jamono ji nag xelu waa Barcelone teey na ca club boobee di Barcelone ndax qualifié ñu ba léegi naam def nañu jéego bu am am solo waaye ba léegi nag qualifié guñu muy waa Barcelone ànd ak Xavi ñu wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa AC Milan rawatina Rafael Leao le bi fësal ca xët wu njëkk wa fantastique démb nag AC Milan gu taxaw la ñu gis bi muy jàkkaarloo ak Paris naam dañu ne bërit rek Paris mëne leen benn bal ci dara Skriniar moo dugal waaye kat goney Pioli yi dañoo fippu doomu Portugal bi di Rafael Leao égalisé ñu mi-temps wee 1-1 dellu si waat ci ñaareelu mi-temps bi doomu France bi di Olivier Giroud dugal mbëkk bu rafet match bi jeexee 2-1 jamono ji nag deferaat nañu seen toogaay ngir toog ca Ligue des champion ba ndax kat jamono ji Borussia Dortmund moo jël pee waaye ñaari poñ képp moo dox ci digganteem ak AC Milan mi jël troisième li leen ko moo di ndam lu am solo li nga xam ne am nañu ko bu ñu jëmbatee tuuti fulla nag ñaari match yi leen dese ñu gañe ko mën nañoo wéy di des ca ligue des champions ba muy waa AC bu dee waa Lazio dorom ñoom démb Feyenoord lañ doon jàkkaar lool gañe ko benn bal ci dara bit ba am ca match ba Ciro Immobile moo ko dugal bit boobee nag mooy deux centième bitam maanaam ñaar téeméeri bit mu koy dugal ak clubam di Lazio de Rome Italie googee sax tey jii ñoo ngi xaar seen ñaari club bu dee waa Inter ànd ak Lautaro Martinez Salzbourg la ñuy jàkkaar lool bu ñu amee ndam ca match boobee rek mën nañoo qualifié ca huitième de finale ya bu dee waa Napoli ànd ak Kvaratskhelia ñoom tey jii Union Berlin la ñuy jàkkaar lool ñoom it li ñu bëgg moo di am ndam ndam loolee suñu ko amee sax dinañu wëy di am yaakaar ngir mën a qualifié ca huitième de finale ya bu dee waa Juve moom xam ngeen ne dañoo bëgg gone gii di Hosberg moom nag ma ngay football ca Tottenham waaye kat waa Tottenham nee nañu jaayu ñu doomu Danemark bi li tax ñu ne jaayu ñu ko nag moo di dañoo am gone yoo xam ne dañuy jógee ca club boobee bu ñu yeggee ci weeru janvier dem jongante coupe d'Afrique ak seeni réew gone yooyee bokk na ci Pape dina ñëw ànd ak Sénégal Yves Bissouma moom it doomu Mali la dina ànd ak Mali dem ca Coupe d'Afrique ba loolee moo tax Tottenham nee na munul tàqalikoo ak Hosberg waaye Juve nag ànd ak Maximiliano Allegri li ñuy gént moo di dem ca solo jëli gone gii di Berardi mu ñëw jàppale leen ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Lacazette dello sport waa AC Milan rawatina Olivier Giroud le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa mila buur bi de du kenn ku dul yow démb Paris la ñu dalal ca San Siro duma ko duma yu miti ñaari bal ci benn ndam loolee nag kenn du ce ñaar ñi muy Olivier Giroud ak Raphaël Leao bu dee Donnarumma moom dund na démb guddi gu miti ndax supporteru AC Milan yi dañu ko sonal lool te journal bi nee na dañ ko doon sànni ay faux billets dollar loolee nag naqari na lool doomu Italie bi la dund